jërë ngeen jëf mbokki internet suñu actu tv ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay li gën a fës ci xibaar yi dañ koy dooree li jëm nag ci mbirum Bougane Gueye Dany moom nag gannaaw bi nga xam ne daal di woon nañ ko defeere ni ki tey jilee foofule ca kanamu procureur de la république bu Tambacounda moom Bougane Gueye Dany nag dañ nañ koy placé sous mandat de dépôt et jugé en flagrant délit moom acteur politique milier ci nag noonu nekk leader du mouvement gëm sa bopp moom nag kon dina fanaan guddam bu njëkk foofule nag ca prison bu Tambacounda gannaaw kon bi nga xam ne rek daj na janook ak procureur de la république ñu koy toppe nag li ci refus d'obtempérer délit de rébellion et outrage à agent de forme publique bu ñu sukkandikoo nag ci avocat mi de maître El Hadji Diouf moom nag dañ lay xam le ni boobule audience en flagrant délit dañ nañ koy fixé le octobre bi ñu dégmal foofule ci tribunal grande instance bu Tambacounda ba tey li jëm ci mbirum justice Ahmed Suzanne Camara moom nag gannaaw bi nga xamante ni daal di woon nañ ko teg loxo jamono jëlee nag juge du troisième cabinet moom nag dañ ne koy accordé ak coupe liberté provisoire tey ci lundi bi octobre moom nag nekk membre du réseau des enseignants bu APR moom nag ñu tegoon ko loxo le 24 juillet dernier moom Ahmed Suzanne Camara nag mu nekkoon foofu la ca prison bu Rebeuss gannaaw nag bi nga xamante ni daal di woon nañ ko placé sous mandat de dépôt pour offense et discrédit sur les autorités de l'État gannaaw bi nga xam ne daal di woon yëkkati ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci premier ministre ak président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye ci ab émission buñ ko invité woon foofulee ci Seneweb gannaaw nag ñaari mois yoo xamante ni mu ngi woon ci kaso bi foofulee ci Rebeuss moomee nag moom Ahmed Suzanne Camara dañ nañ koy accordé ak coupe deuxième cabinet